asalaamaaleykum amante net Dakar Buzz ñu ngi leen di nuy di leen siyaar eh, di leen ñaanal jàmm eh, di am mbégte jàkkaarwaat ak yéen seen émission mag bi Dakar Buzz social Dakar Buzz social nag ñu ngi sant yàlla baax eh, di julli ci Yonent bi di gis ni ngeen ni toppee di nu ñaanal di nu gis nañ lu baax li ngeen def tam ci émission yi gis nañ ni vidéo bu dana metti lool waaye sant yàlla ndax gis nañ ni ngeen ci jàppee ba daanaka sunu xel day dal. loolu ñu ngi ciy sant yàlla baax ndax nit bu jëlee dërëmam ci alalam jox la ko sax euh, jërëjëf wàññiwul dara ndax ku santul nit du sant yàlla ñu ngi ñaan képp ku koy suivre di ci def sa alal rek yàlla bokk ko ñàkk yàlla yàlla taxaw la jàppale leen euh, te def leen ay xéwal di gërëm ñi ne ci fii ci biir réew mi Sénégal bu baax a baax a baax ñu ngi suivre émission bi waaye di gërëm ñi nekk tam ci àll bi diaspora bi ñëpp gis nañ ni ngeen di bàyyi xel tam émission bi di ñaan daal yàlla yàlla taxaw leen jàppal leen ci barke Seexul Xadiim di gën a am mbégte nag ci ni ngeen di toppee plateforme Dakar Buzz social bi nga xam ne euh, numéro bi mooy 78 601 11 11 ñu ne kenn ku ne rek euh, lépp loo xam ne rek ba nga ko faa def soo ko fa tabalee euh, dinañ ko jël dinañ permetre bu nu seeti malade bi mu néew mu bari ñu mën cee jël dimbalee ko malade bi gis na ni ngeen ci contribution ci seen contribution ci ci numéro boobu di 78 601 11 11 tey nag jogaat nañ ñëw fii ci Maris muy ñaari cas nag ñaari kaa yoo xam ne ñaari cas yu la kenn ki Abu Saw la tudd benn xale boo xam ne dafa juddu euh, daw tuuti dem tuuti am benn feebar bu nekk ci diggante tuñ bi ak bakkan bi ñu war ko opérer defi baa ngi nii defi bi nekk defi baa ngi nii di deux cent mille sans compter ordonnance deux cent mille la cent compter ak ordonnance yi nga xam ne moom la war a jël euh, famille di néew doole seen doole bëriwul ñu wooñu comme Dakar Buzz Social dañ ne dañoo bëgg képp ku rek ku ne ci biir dëkk bi gis ci sa bopp ñu jox comme ni ñu koy defee xale la bu war a def opération bi 200 millions ngi nii ma leen ci tàllal loxo rek ci yéen ñëpp koo xam ne rek jaboot nga jàpp nga ne li ko suñu borom moo la ko jox te koy dimbalee maa ngi la ciy tàllal loxo ngeen dimbali ko pour mën a dem defi opération bi xale baa ngi ni Abou Sow ma toog ak yaayam soxna si maa ngi lay nuyu. maa lay fay sëñ bi. tur lii ko dal ah, lii damaa xëy rek ma gis ko mu dal ko mhm. waaw. ban mhm. Mhm. ñoom ñoo la defal uh, ordonnance ak ak bi. waaw dafa war a def opération dama yoruma dama néew doole aw ma kenn ku ma jàppale. loolu moo tax. papa mu ngi fi. dooleem bariwul. dooleem bariwul liggéeyul moom tamit. lan ngay wax ñu la seetaan te bëgg la jàppale pour xale bi def opération bi. ñu jàppale ma rek ndax awma lu dul benn doom bi kese mu bëgg rek ñu jàppale ma ko mu wér loolu rek laa bëgg. mais judduwaale ko. déedéet judduwaale ko dafa xëy rek ñu gis ko mu mel nii. du metti du ko tere nelaw ak nan lay dundeek lii parce que lii lu doy waar la. da ko sonal parce que da koy fatt moo tax diggante bakken bi la ak gémmiñ bi tuñ bi loolu moo tax. maa gis muy muy fàtt mel ne ku sot te fekk loolu moo koy sonal. waaw loolu moo koy sonal moo koy teree nelaw tamit. Mhm. problème opération bi defi bi deux cent mille moo ko bàyyi ci kër gi. waaw te ordonnance tamit mhm. ñoom dañ leen ne bu ngeen indee deux cent mille ñu mën ko opéré. waaw nee nañ bu ñu indee deux cent rek ñu jël ko opéré ko jël ko en charge opéré ko. Mhm. jërëjëf am internet Dakar ba dégg ngeen loolu ñu ci wax muy lu metti waaye di jaajëfal ñi nga xam ne ñooy médecins yi sama xarit yi su suñu waa Dantec major maa ngi lay nuyu ndax gis nañ lu baax la ngeen di def ñi ñuy yëngu social ñun ñi noonu ngeen di yëngu ci social loolu moom xam naa ci dara ndax ñëw naa Dantec indi fa malaat ngeen jàppale ma ci malade boobu kon képp koo xam ne rek médecin nga di yëngu ci wàllum paj maa ngi ñaan yàlla defal la jàmm defal la xewal defal la sutura te yàlla gën leen a may xolu laab biir ba ngeen mën di taxaw malade ndax xam naa seen yéene yéen ñëpp waaye gis ngeen li yaa ji wax problème mu cent mille la muy problème boo xam ne bari na bariwul xale la ma leen ciy tàllal loxo rek ci koo xam ne mën na cee jàpp rek nga jàpp ci ngir ñu mën koo opérer pour xale bi mën a màgg ndax mën a doxi soxlaam xale la mais da koy fat parce que dafa dem ba commencé tëj beneen paxu bakkan bi te xale ndegam mag moo ko attanul xale ma leen ci tàllal loxo yéen ñëpp rek di wax ne daal yaakaar naa leen ci gannaaw yàlla waaw mbokki yi ni ma leen ko waxee ba rek ñaari kaa benn kaa mooy kaaw Abu Saw moom mooy xale bi nu war a defal opération bi am problème bi ci tuñ bi ak bakkan bi ma leen ci tàllal loxo ndax tëj na benn foxu bakkan bi ba mu ngi koy sonal te xale la beneen cas bi mooy xale bi nga xam ne tam dafa judd lii ko te judduwaale ko muy lu doy waar loo xam ne tam gis ngeen ko nii silmaxa ba ma ko dab muy lu metti loo xam ne judduwaale ko euh, mooy ma leen ci tàllal loxo rek moom tam muy def traitement bi daan teg ndax yaa ji maam ji déggul olof te yaayam tam noonu la mel déggul olof mais ñoom ñëpp ci benn kër gi la ci benn kër gi rek la lu leen di waaye di dimbalee rek bu ko yónnee ci numéro bii ma leen di jox dina ci mën a jàppale ñoom ñëpp moom it dafa a def opération mais moom xamaguñu bilan bi ñaata la parce que dañ ko bindal ay analyse ak ay ordonnance ay scanner yoo xam ne defagu ko parce que doole la amagul lu mu ko defee mais ñoom ñëpp benn kër gi la benn famille la moom bët yi moo jékki-jékki rek tëju comme judduwaale ko nag am nan njort ni buñ ko jàppalee faj ko yàlla mën naa def mu jóg gis nga ko nii fu mu jëm dañ ko fa yóbbu xamul lu bari euh, xam ci dara moo tax ma lañ ci tàllal loxo yéen ñëpp rek pour ko mën a jàppale tam nga jàppale ko lillaahi wa rasul moom ay kayitam moo nekk nii muy xale bu ndaw mi ngi noonu yaa ji nag dégg olof dama koy bàyyi tuuti xam na mu wax tuuti ci pulaar rek pour yéen ñi dégg pulaar sax ngeen xam cee comprendre gummi ko jalluɓe min ngari ɗo hen hamin cafro duɓitano dante joni noon doole noon ngala min jeeyi toon min bindini min kayitaji ɓe mbi mamin cafro min min ngala ɗum joni noon guila e eh, ananis ha e radio ha min mbaɗi kono kalis o ala gila e pasuji toon joni e leegal amen ngal ma mbaɗa ujunnaji ɗiɗi jawle gartol andi ɗum fof kalis ka miskina allah gila nder amin jooɗi hay joni joni gartumi mi heɓani mbiɗa yahata mbiɗa arta sa ala a safrotako ko miskineɓe allah ɓe balliri musiba allah min cellani ɗum addimi eyyi waaw mbokk yi ni ma leen ko waxee rek gis ngeen kaaw boobu nga xam ne kaaw xale la moom it di yàlla def ci lim ci def lu mën a faj la am nañ ci yaakaar ah, ndax yaayam déggul olof maamam déggul olof waaye moo kii ñoo bokk benn néeg bu mu leen dimbalee ndimbali benn lay doon ah, ba tax na may sant yàlla ci plateforme Dakar Buzz social boobu nga xam ne moom ngeen ñu jàppale numéro bi di 78 601 11 11 wax naa ko léegi. li ngeen ci jox dinañ permettre bu ñu seeti malaat mu néew mu bari nañ ci mën a jël dimbalee ko malaat bi te ñaan mu barkeel maa ngi ñaan sunu vidéo yi fi jaar yëpp yàlla na ci bii bokk ba ñu mën a jël xale yi en charge faj leen kii problème mu bët la yoo xam ne judduwaale ko bu demee mën naa buñ ko fajee yàlla mën na cee def tawféex kii problème opération la war a def tam bilan am di deux cent mille lépp di benn cas ci benn kër kon ñoom dimbal leen yaakaar naa ne mooy dimbal leen benn bi rek. plateforme Dakar Buzz sociale bi nag eh, sant nañ ci yàlla ci ni ngeen di ciy suturaale kon moom Dakar Buzz Social ñoom ñaar dina leen jox cinquante mille ndax booy def lu baax yaa cee jiitu Dakar Buzz Social dina leen jox cinquante mille ñoom ñaar kenn ku ne jël vingt cinq mille ñu dimbalee leen ko comme benn famille la te bëgg na kenn ku ne gis sa bopp ci Dakar Buzz boo tax dina leen dimbalee cinquante mille ci tur Dakar Buzz Social. Seydou Dakar Buzz Social dimbalee na leen ñoom ñaar kenn ku ne vingt cinq mille muy cinquante mille ci ki war a def opération bi ne ci tuñ bi ak xale bi war a def tam opération bi ne ci bët yi dem ngeen ba faju jeexal takk yoratoo leen dara Dakar ba Social non seulement ñëw jàpp pour ñu jàpp leen mais mu dimbalee leen cinquante mille léeg-léeg yëg-yëg bi lan la. Ah, yëg-yëg bi damaa kontaan ba mënuma wax ndax am na ñoo xam ne ñu ngi fi war ñu war ñu jàppale jàppalewuñu yow tey boo ñëwee def lii dañ lay sant gërëm la gërëm Dakar Buzz ci kaw rek ci kanam yal leen yàlla jàppale defal leen li ngeen bëgg. jërëjëf am internet Dakar Buzz social lii mooy li ñu leen jësiloon fii ci Maris ñaari kaa ci benn kër xale bi problème mu opération la war am bilan moo nekk nii xale be problème bët la am judduwaale ko moom tam war a def opération. manque moyen moo tax moom mënagul a xam bilan opération parce que pour mu def analyse c'est tout un problème pour mu passe dem hôpital c'est tout un problème ndimbal la ni sàkku ñun leen ci yaakaar waaye ñun yéen leen ci yaakaar may ñaan yàlla taxaw leen te yàlla jàppale leen ci dakaar Buzz Social bii nga xam ne yéen a ngi koy topp lu baax lu ci waaye def rek gis nañu ko yàlla mi am fay yàlla na leen fay di gërëm waa réew mi di gërëm diaspora bi ñaan yàlla taxaw leen te dooleel leen di gërëm encore une fois Khadim Amar lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla di ak képp koo xam ne rek yaa ngi suivre Dakar Buzz Social jërë ngeen jëf ci micro bi Fadal mi ngeen tàmm gis la ci micro bi Fadal ngeen tàmm di gis la ci cadre bi Seydou la yàlla na ñëpp am jàmm dinaa balancer numéro yaayam bi noonu ci suuf baaru écran bi ngeen koy gis pour lu ko mën